فعطى القلب الشيء هدونا المعاني يا أبا العباس يا أبا كل don, lu sori sori lu dul ba njariñ li lay jariñ man mako warlul moo tax benn borom xam-xam dafa waxoon ni wa taxrusuuna ala ma takaffala allahu lakum bihi yaani amra arzaqikum wa tudayicuuna ma wukkiltum bihi min amri taa nee na li nga xamante ne nii yàlla da leen koo warlul muy seen lekkak ak seen naan boo ma warlu ne di nga dund ba at ma warlul ne di nga lekk ba at waaye Seydi Hadji maak nee na li e, borom xam-xam bi ni nit ñi li leen yàlla warlul muy seen lekk di seen naan di seen wërsëg moom la ñuy kër kër yi di ci rey seen bopp waaye li nga xamante ni nii yàlla da leen ko wékk muy jaamu yàlla moom la ñu gannaawal li nga waroon rey sa bopp muy jaamu yàlla nga gannaawal ko li la yàlla warlul muy sa wërsëg nga rey ci sa bopp te xanaa xamoo ni e, nit ki Sidna Ali da doon wax ni walaw sabar naa la kaana rizqu yatlubuna walakin xuliqa al insaanu min ajalin sidna Alioune dafay wax ni gis nga sàcc bi dem ci boutique bi dajji boutique gu jaamur jël fa dara wala mu am amin bu ñaaw wala ki nga xamante ni dem na jaay ngoram am ca alal wala jigéen ji dem jaay boppam am ca alal nee na alal jooju ñu la ci jox ci sa ngor gi nga jaay sa bopp bi nga jaay sàcc gi nga def ak ñàkk muñ ba dugg ci loo warta dugg ndax kuru bi ne tëj nga naan putit bu jee nga rus waaye mu ni loolu yàkkamti la waaye soo teeyoon loolu tegu ci sa loxo te di nga ko am amin bu rafet parce que sa wërsëg la kon nga gis ni wërsëg yàkkamti bu ko nit di ko yàkkamti mën na ko pousser ba mu ute ko amin boo utin boo xamante ni dana tax du dagan waaye teey gooy teey dana tax nga amee ko amin bu dagan mu ni walaw sabar naa la kaana risqu yatlubuna walakin xuliqa al insaanu min ajalin waaye yàlla nee na wama min dabatin fil ardi illa ala allahi risqa yàlla nee na lépp loo xamante ni mu ngi ci suuf di dox yor bakkan ma bind ko la koy dundal ci sama loxo la nekk te dinaa ko ko jox waaw ñaari biir ñoo am biir bàmmeel ak biiru nit bu dee biiru nit ki la cay dugg sa yoon nekku ca yàlla ma la bind sàkk la moo cay dugal la cay dugg waaye bu dee biir bàmmeel loo fa jiitalul doo ko fa fekk wax fa innaka tamuutu waxdaka wa tubaasu waxdaka wa wax waxdaka yonent bi nee na kër-kër gi ak ñi lay wër riir gi doole bi nga am pouvoir bi nga am moo xam pouvoiru adduna la ngay fal di folli di tëj di tijji di toroxal di teral nit ñi wër la nga am doole joo xamante ni kenn xamul nu mu toll su yonent bi nee na loolu bu mu la nax ndax bis dina ñëw ñu tëral la ñi nga ëppoon doole tiim la ana ñi fi jiitu woon di ay président ñu ci bëri tey ñu ngi ci biir suuf ana ñi fi jiitu woon di ay nitu yàlla yoo xamante ni dañoo téewoon jamono ci seen loxo bu ñu waxee ñu def suñu digalee ñu def suñu teree ñu bàyyi ñëpp di leen déglu gëm leen yaakaar leen ñu ci ëpp tey ñu ngi ci biir suuf kon yonent bi ne fa innaka tamutu waxdaka nee na booy faatu yow kesey faatu kan moo fi mës a faatu ba soxnaam bëgg ko ba ni nañ ma suulaaleeg moom wala borom këram àgg ci moom muy faatu ñu ni nañ ma suulaaleeg moom kan moo fi mën a àgg mës a àgg ci maqaama bay faatu ay taalibeem ni naa deewaaleeg moom nañ ma suulaaleeg moom amul yonent bu fi mës a faatu nit ñu suulaale ko ak moom amul sëriñ bu fi mës a faatu ñu ni ay taalibeem volontaire ni nañ ma suulaaleeg moom wala taalibe buy faatu sëriñ ba ni sama taalibe bii kat fi mu ma yeggoon nañ ma suulaaleeg moom yonent bi ni fe innaka tamutu wahdaka nee na booy faatu yow kese yaay faatu wa tubaasu wahdaka nee na buñ lay dekki tamit nga nekk ci biir bàmmeel di toj sa bàmmeel <laughs> subhanahu wa taala yàlla du kenn wa anna iaadata arwaaxi fil ajsaami laa yakunu illa baada tamaami xalqil ajsaam xam nga dañu ni a iza kunna turaban wa izaman inna la mabuthun dañu ne yàlla waaw ndax suñu deewee ba seey nekk ay donju suuf ak ay yax ndax yàlla dinañu dekkalaat ba ñu melaat nañu meloon yàlla ni bale qaadirina ala an nusawiya banaana yàlla nee na dinaa la dekkal yow Mansour ba bu ma lay dekkal waxuma la sa empreinte digitale yi nga yoroon ci àdduna booy dekki yow mal qiyaam moom ngay dekkiwaale te pourtant feeyoon na yàlla ni balee qaadiriina ala an sawiya banaana nga faatu nekk ci sa biir bàmmeel yàlla yabal kàddu mu ni ayatuhal izaamul baaliya eh kàddu gi ni yéeni yu ràpp yi seeyoon yi nga gis doomu aadama bi dee woon ba seey yax fu mu mën nekk ci biir suuf dina dajaloo bay doon ay dumbul di doon ay donju dajaloo ba yax yépp fees ci biir bàmmeel bi te seeyoon na yàlla ne ko inna rabbaka yamuruka ayun damma baadukum ila baadin yàlla digal na leen yéen yax yii jooru ci biir bàmmeel bi ginnaaw ba ngeen sóor ba ngeen seeyee ngeen duggante bu ci nekk xam nga foo war a dugg nga gis yaxu tànk ak tànk duggante yaxu baaraam ak baaraam duggante articulation bi yaxu ndigg yi duggante yaxu bopp yi duggante ba nga doon yax squelette bu tëdd ci ci biir bàmmeel yàlla sànniwaat doom ni inna rabbaka yamuruka an yundama baadukum ila baadin seen borom bi leen bindoon ginnaaw bi ngeen faatoo ba seey mu daal li doon suuf mu wax leen ngeen nekkaat ay yax digal na leen na yax yi duggante yex yu duggante mu ni leen watug tasaalaax man yàlla ne yàlla mi leen bindoon ba yàpp wisee yàpp wa ngeen yoroon ci àdduna nee na na ñëwaat teguwaat ci kaw yax yi yàpp wa ñëw fu mu mën a nekk ci biir suuf tafawaat ci kaw yax yi ba nit ki am yàpp ak yax mu ni ko watug tasaa jilda yàlla ni na der bi génn fu mu mënoon a nekk der bu seeyoon kenn subhaanahu wa der bi seeyoon bi nga yoroon ci àdduna ak leget yi nga amoon daa di ñëw tafu ci kaw yàpp wi ci biir bàmmeel su ma xarajati soxoon yàlla ne na karaw yi génn karaw yi génn nit ki mat sëkk nek ci bir bàmmeelam teud way amagul ruh ndax anna iaadatal arwaaxi fil ajsam la yakunu illa ba'da tamam khalq al ajsam bala yàlla di dugalat ruh ci bir yaram dina fek yaram biñu bind ko bam melat ni melon nit ki nek nekat kam melon teud ci bàmmeel te du meuna juk lutax du wara meuna juk ndax da am ko wara a juk muy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nu jek jek rek deg ben seren rek bu daw ñu dadi di roof nit ñi ro seni roh roof nañ leen seeni ruux waaye ñu ngi tëdd ci seen biir bàmmeel mënuñoo jóg waaw lu xew ba mënuñoo jóg daa war a am ku njëkk a génn ñu jékki-jékki Seydina Muhammad ni tëll toj meelam taxaw ñëpp doodoo génn nag walu man tunshaqu anhu l ardu yawma alqiyaama mooy sallallahu alayhi wa sallam ki nga xamante ni mooy njëkk a toj bàmmeelam génn taxaw ñi ci des ñëpp toj seen bàmmeel génn taxaw waaye ku ci toj bàmmeelam ba génn taxaw tamit yonent bi sallallahu alayhi ni laa yazulu qadama bni aadama yowma alqiyaama xatta yusalu an xams war nañ koo bàyyi xel yonent bi nee na ku toj sa bàmmeel ba taxaw génn ak koo mën a doon balaa nga buuse mètre dinañ la laaj juróom te di nga ko tontu an umrika fii ma afnaytahu dinañ la laaj sa dund ci lan ngoko ko consacré woon te di ko tontu moo tax dund gu jeex ba pare daa jara ñaaw bàmmeel mu ngi nii sa kanam ata amrullahi yàlla daf lay faat léegi ndax dund goo xamante ni day jeex léegi ndax jar naa ñaaw damay wax ni lu néew la ca ëpp dem ba mu des lu néew nga cay nekk di ci dund ba mu dese la lu néew te saa soo xëyee tiim néew xam ne dinga nekk néew war nga ngaa lu ba lay jëriñ di yiw bañ a néew balaa ngaa nekk néew ndax bo nekké new lu jëf new new lor la budé jëf ju bax ju bon joo jiitaloon way lu jëf new new du la jariñ budé jëf ju bax joo jitalul won kon ñun la an umrika fi ma wa an shababika fi ma ablaytahu dinañ la laaj bo tojé sa bammel yowmal qiyam sa sa jeunesse ci lan nga ko passé ndax ndax seigne Mansour ki nga xamanteni nek na xalé tollu ci digg doolem àdduna soxla ko mbedd mi soxla ko bakkanam soxla ko iblis soxla ko yàlla soxla ko passion di di ko laaj yooyu yëpp di ko xëccoo yàlla nee na foofu la yooyu di xëccoo man mi la bind falaa la soxlaa soo ma joxee sa bopp ma tàll la buum gu la indi ba ci man wa man yakfur bi taaguuti wa yumin billahi faqad istamsaka bil urwati l waaye nag soo ma fi bàyyee topp sa bakkan wala nga topp ibliis wala nga topp àdduna medd mi ba yàqu yàlla nee na bu ëllëgee boo dellu see soxla wu ma la